jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare lamb ñu ngi leen di nuyu euh, di leen jaajëfal bu baax a baax a baax ñu ngi dalal ki nga xamante ne moo représenté MMA ici au Sénégal muy Pape Demba Pape Demba dañ lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi su ko defee ñu weel waxtaan bi noo def. maa ngi fi rek maa ngi fi rek maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant alors di di nuyu sa mbokku sa mbokku internet yi waaw. Euh, Pape Demba représentant MMA ici au Sénégal loolu kañ la. depuis 2016 euh, la ñu am euh, la ñu am récépissé bi mais depuis 2012 ñu ngi pratiquer li ñuy wax free fight waaw mooy combat libre mais depuis 2016 daal lañ ko formaliser topp topp niveau international bi di di topp di gëstu li ñuy def ñun tamit ñu ñu commencé di def MMA mais MMA amateur waaw. mais sport bi nan la la duggee yow da nga daan def beneen sport bu dul MMA wala dafa amoon yeneen sport yoo doon si. waaw waaw à la lim à la à la base je ci boxe laa jógee euh, jàng naa boxe jàng ba pare euh, nekk euh, ab Apkido donc noonu la ma duggee maître maître Dame ak maître Kamal dugal ma ci MMA ma def ay combat avant daan naa def ay combat Apkido yi tout ça ba après maître Dame Seck jiite ñu daal ne jëm leen xool noo leen di doxalee association pour mu gën a jëm kanam quoi parce que gos yi bëri nañ fii euh, demande bi bëri na te mun na war na leen mën a jàppale pour ñu gis seen bopp quoi waaw. Euh, ñi nga xamante ni ñoo leen di accompagner fan lañ nekk ci yan dëkk ak yan dëkk. waaw dans les euh, dans tous les pays du monde ñi ngi fépp. ñun ñun dañuy voyager di dem di dem dëkk bu nekk di fa rencontrer ay experts di fa rencontrer ay ay ay entraîneurs ay combattants et tout ça chaque fois ñu am benn benn combattant wala benn expert bu jóge extérieur ñëw defal ñu stage donc ñun dañuy voyager partout dans le monde dem gëstu gis indi c'est tout donc contact yooyu noonu am nañ ko kon am nañ fii aussi ay contact ñu ñu jàppale ci euh, ci MMA bi en tout cas waaw. noo gisee MMA bi fi mu toll nii dafa mel ni sénégalais yi ñu bari bari jug nañ ci ba ñi nga xamante ni ay mbër lañ champion ci làmb ñu mun leen na nataabalee ku mel ni Bombardier rëg-rëg ak ki nga xamante ne mooy Siteu gis nañ ko ci MMA bi am na ñeneen ñoo xamante ni ñu ngi séentu ñëw lan la dafa yomb wala MMA bi moo gën a nooy làmb non gënul nooy sax de <laughs> dégg ngeen dégg ngeen léegi dégg ngeen temps yi passé ku demoon defi MMA euh, ne euh, rëg-rëg ne lan la wax nee na MMA moo gën a métti effectivement moo gën a métti c'est cool que style bu bees la te c'est normal boo nekkee combattant dangay ngay bëgg gëstu da ngay bëgg gëstu da ngay dañ kumpa ci ay style yu bees c'est tout à fait normal loolu rek engouement bi foofu la man loolu la ko jàppee ah. budoka ñun budoka yi ñun dañuy bëgg chaque fois di découvrir ay style yu bees donc euh, man loolu laa ko gisee ah waaw. ñaata combattant nga yor fii ci ci salle bi. une trentaine am nañu une trentaine de combattants. non. Euh, ku ci bëgg a ñëw bokk ci nu muy nu muy doxalee. waaw da ngay ñëw apprécier wu ci académie bi rek am nañ euh, académie au niveau zone de captage sama do boo ñëwee ci académie rek yaa y aura toutes les informations yi nga bëgg ça dépend ci localité bi ngay dëkk ñu xool kuñ lay booleel parce que dans toutes no salles de Apkido yu nekk ci dakaar comme yu nekk ci région yi am nañ ay section MMA après ñu xool kan la lay booleel pour ñu mun la entraîner tàggat la ci MMA. Euh, bu Modou Lo mooy roi des arènes bi MMA actuellement kan moo moo ne ci kaw kan mooy roi bi. des arènes Moussa Togola moom mooy roi des arènes. ci ci MMA. bon c'est suñu association parce que xam nga compétition da nga koy def ñun dañuy def euh, ay tournois ay tournois nation national di ko def fii nii si Sénégal. donc à l'issue de ces tournois là ku ci ëpp victoire effectivement yaa yow yaay nekk euh, entre guillemets le roi. donc Moussa Togala la donc moom moo war a dem sax au niveau de war na dem Cameroun dem defi foofu euh, benn combat donc ñi ngi koy tàggat ci loolu moom ñu mi ngi ci poids lourd yi quoi mais euh, affaire de roi affaire yooyu noonu amagul cest di que c'est juste que nombre de combats. de défaite parce que c'est par catégorie dafa am lourd léger ak euh, semi-lourd en fait toutes les catégories sont représentées donc ku ci nekk am nga am nga sa am nga sa benn champion quoi entre guillemets waaw. Euh, waaw waaw Moussa Togala mi ngi fi. Sénégalais la Sénégalais la. waaw mi ngi fi après naa leen ko présenté ngeen jël ko. comme ça moom mu wax leen palmarès am après mu wax la lu muy waajal et tout ça en tout cas mi ngi mi ngi représenté MMA bu baax te euh, alhamdulilah am nañ yaakaar ci moom. MMA international foofu aussi par catégorie la fa par catégorie déggoon ngeen fi keroog euh, ni ñu koy waxee euh, euh, ah ak kan Habib ainsi de suite ainsi de par catégorie la. bu leen jàpp ni que MMA dafa am benn comme comme lamb ji fii nu mu mel nii am benn roi des arènes kese kese kese lamb li li am ci làmb lamb rek la am bépp compétition boo dem dafa am catégorie catégorie bu nekk dafa am champion. noonu ngeen koy comprendre. c'est plus de 80 merci 100 kilos 110 kilos kilos. non 110 kilos plus de 93 boobu euh, moom mooy lourd super lourd moo ëpp moo ëpp ay 100 kilos jëm kaw yooy benn catégorie la ay catégorie léger light semi lourd mi lourd et tout ça affaire noonu donc bu nekk day am benn benn représentant benn champion. waaw ku mel ne Bombardier ci ban catégorie la ko. non mi ngi ci super lourd yi itam. ci MMA bi tamit bu ci bu ne am wute ay combat ñu ko jox léger dañ koy jox catégorie am c'est tout à fait normal parce que yàlla may na ko gabarit donc loolu loolu il faut mu muy combattre ñi nga xam ne toll nag ñoom parce que MMA loolu mooy base bi dañ lay booleeg sa catégorie mais lamb rek ngay gis ñu booleeg benn 140 kilos ak benn kilo carrière euh, Reug Reug ci MMA fan nga fan nga ko gis fan nga ko séen. waaw bon bu bu ko nee di def entraînement am comme ni mu ko waree et puis gëm ko war na mun a sori ah waaw. lu mu war a yokk kay na <laughs> MMA lañ wax waxuñu làmb donc wallu MMA moom lu mu war a yokk bëri na donc gën a gën a topp entraînement am rek ak coach am euh, Mamadou Diouf ki nga xam ne moom tamit combattant la combattant MMA la donc effectivement li mu war a yokk bëri na. yokk cere dooli ñeex rek moom moom mii sax reconnaître na ko donc du coup na gëm boppam kon continuer entraînement am mu xam ni que MM li ci MMA li ci lamb newul ci MMA mu xaw mu xool li ko manqué mu complété ko waaw. Bombardier noo ko gisee am na combat ak Rocky Balboa gis nga ndam lu mu ci am amaat na beneen combat gis nga ndam lu mu ci am daa mel ni mu ngi def jéego moom it en tant que doomu Sénégal jëm ci kaw. effectivement waaw mais lool loolu la ñuy ñaanal ñëpp ah loolu la ñuy ñaanal ñëpp en tout cas. Euh, ñi nga xam ne am nañ ay combat disons ñi nga xam ne am nañ ay combat libre noonu la ko mën a tuddee ñu ngi leen ñaanal yàlla ñu réussir seen carrière yoon parce que ça sera pour le Sénégal c'est vrai que pour ñoom la mais aussi dañuy yóbbu tour Sénégal fu kawe te loolu ñun soxla nañ ko association bi pour mën a gën a développer discipline bi parce que nous on essaye de viser autre chose que ñun viser wu ñu rek maanaam di wut ay combat wala affaire dañuy viser aujourd'hui une fédération une fédération mooy lan loo xam ne da ngay da ngay encadrer da da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay boole da ngay gérer ñun loolu la ñuy viser loolu moo gën a am solo mais euh, ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ku ci nekk daal boo ci munee décrocher sa combat alhamdulilah et puis ñun bos boo ñu soxlaa ñun ñu ngi fii ñu ñu xam-xam bu ndaw bi ñu am ñu jox la ko. waaw. Euh, ku mel ni président Khadim Gadiaga dafa wax benn wax bu am solo nee na ñoom pare nañ pour def euh, ligue MMA euh, loolu noo ko gisee ak ban gis-gis nga ci am. waaw mais balaa nga wax waxu ligue nga wax waxu reconnaître déjà MMA nañ ko reconnaître ba pare moo gën am solo nañ fexe ba ministre ministère de tutelle Matar Ba reconnaître MMA ba pare après nag ñu soog a waxu ligue parce que ligue c'est autre chose waaw. loolu dégg nga. dama ci dégg nit yi wax mais moom dégguma ko muy wax quoi. ok waaw mais comme que am nañ xalaat boobu ñoom en tant que milieu de la lutte c'est très bien donc ça veut dire que ñi ngi ñoom d'accord ci ci ci MMA. Euh, lu baax la loo xam ne war na mën a ñëw Sénégal c'est très bien c'est très bien mais man pour man li gën a am solo nañ nañ fexe ñu ni ñu koy waxee li ma wax léegi nañ fexe ministre bi accepter déjà MMA ñu autoriser ko ba pare maanaam d'une manière officielle. est-ce que jéego yooyu yéen a ngi koy def jëm ministre. waaw ñi ngi koy def xam nañ fi ñu war jaar ñi ngi koy def daal en tout cas ñi ngi ci ñi ngi ci tànk yooyu noonu. rencontré ngeen ministre bi. Euh, ñi ngi ñaan yàlla ñu rencontré ko bientôt incha allah am na ci yaakaar ñu yaa ñu rencontré ko bientôt incha allah waaw. jaajëf jaajëf jaajëf Diouf merci beaucoup jaajëf jaajëf. jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan loolu lañ leen indiloon tey ñëwoon fii ci salle bi nga xamante ne moo nekk zone de captage ñëwoon rencontré ñi nga xamante ne ñooy def MMA ici au Sénégal di jëfalaat képp koo xamante ne yéen ñuy seetaan ci wasaare TV wasaare làmb di leen jëfalaat bu baax a baax a baax baay jili la woon ci caméra bi euh, kàggu sama waa ji ma leen di jaajëfal ba ëllëg incha allah jërë ngeen jëf.